ah que sëñ bi yegsi na ci jàmm ak salaam mbokk taalibe comme ni ngeen ko gisee ci image yi nii sëñ bi yegsi na ci jàmm ak salaam mu ngi koy dalal Mbacke Balla mii nii ak délégation bu àndal ci Abdoul Ahad Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada macha allah gis ngeen jëwriñ yi mi ngi saafante ak jëwriñ yi daanaka lu jege ñaari euh, sëñ bi na mën a jëwri ni lool macha allah Mbacke Balla ambassadeur de l'islam ñii ci waajtaay 8 juin bi nga xam ne mooy am fii ci Pala Giorgio 8 juin 2022 3 23e édition يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi laa silta dayfan kariiman saayiran abadan mukarraman biqiraa taati wassadadi معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت معي أو سار وقادي أو طار وتارد أخيار من القلد وسافدا كل شيطان بما معه ومتفا لسبي الإحسان بالسفد ومسبا كل أحسان نديق بها في الدار أفئدة يا مسب النكد وزائدا كل عام ما نفوت